mbokk yi jër ngeen jëf jaajëfal leen ci fasante ko lu rek écouté gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu moo jot. bisimila ci xibaar Adama Ndione li ciy gën a fës daal na ci rek euh, bokk comité pilotage bi ñu daal di nag euh, teg ngir kaa yi ñu nemmeeku ci ñiy faral di dab ci géej gi ministre intérieur jël dogal ngir daal di nag euh, dooleel li nga xam ne mooy matuwaay yi ci wàllu nag kaaraange ak sensibilisation yi ñu amal nag ci waaxu géej gi di ci plage yi dinañ ci daal di nag àddu ci ndaje bañ ci amal tey jile wax ne jëme it loi bi nga xam ne nag moo daal di wàllu code pénal bi moom Antoine euh, mu ngay daal di nag layal mbir mi wax ne mbir laalu na laalewul ci ay askan wi ñu daal di def ab manifester dinañ ci ànd ak Amadou Moustapha Dieng ñi aju nag ci ñi caabi di faral di féete gannaaw ña fare Boffa Bayotte wala ñu laale woon ci mbir moomee daanaka dañuy tàmbali ab grève ab xiifal ndax lañu ñu daal nag gis mooy téyendi bi nag daal na yàgg tax forum justiciable sax génn nañu ab bataaxal ngir daal wax jëme nag ci mbir moomee daal di gis mooy faaw ñu daal di yemale li aju nag ci wàllu topp gi ci li ñu duppee mandat dépôt eh, te indi bu yàgg bi itam dossier judiciaire yi ñu daal di koy baral ndax charte àdduna wërngal këpp li ni mel la ñu daal nag xamle Thiès daanaka dalal kii di njiit réew mi bokkoon ci ponk wax sa xalaat yi jamono jile mu ngay pare sax yëkkati kàddu jeme ko nag ci askan wi ke ci kees donte ay xumbateef daal na ci rek am waa ñi doon manifester ngir wane nag eh, ñàkkub ànd ak njiit mi daanaka xam eh, ak ñañ ca daal di euh, tas seeni nag ndaje yooyu ci biir xibaar yi euh, dinañ ci daal di nag addu euh, dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy ubbi antenne bi ci wax sa xalaat xibaar yi daal di buur ànd ak Pape Lay Dieye ci sottandikukaay bi faram-fàccee Guinness kii lay Adama Ndione euh, ci kàddu gi comité pilotage la ñu daal di teg di kuréel ngir rek li ñu nemmeeku ci ñiy lap ci géej gi ministre bi ñu dénk biir réew mi kaarange askan bi nee na daal la ñuy daal di dooleel wàllu dispositif yi di matuwaay yi ci wàllu kaarange gi ak ñax askan wi itam ñuy faral di nekk ci wetu nag euh, plage yi waaye fexe ba teg ay commission ad yi nga xam ne dina mën a tax barab yi nga xam ne euh, dañ ko daal di nag ay sangu ñu daal di di ko surveiller ñu joxe autorisation bi itam ñu daal di koy nag toppatoo dañuy ñuy teewlu kàddu yu ministre Antoine Félix Diome ak Amadou Moustapha Dieng. ñaari décision majeure yi nga xamante ni jël nañ ko premièrement gën a taxawal police ak gendarmerie ak sapeur pompier ci plage yi ñaareel bi gën a yee nit ñi ci li nga xamante ni mooy plage dangereuse yi ñu bañ fa dem waaye teg nag benn commission buy liggéey ci ñu reclasser rapidement plage yi en plage yi nga xamante ni dafa am danger ak plage yi nga xamante ni amul danger te bu boobaa dañuy jëmmal ak ay drapeau ak ay tableau fi nga xamante ni nangu nañ nit sangu fa ak fi nga xamante ni nangu nit sangu fa waxuma ko léegi si tubaab waaye dinaa rafetlu loolu fédération sénégalaise de natation teewoon na ci euh, ndaje bi euh, association des maîtres nageurs teewoon nañ tamit ci ndaje bi nga xamante ni ñoo xamante ni la seen euh, xam-xam màcc na jëm ci wàllu géej ñoo xamante ni tamit ñu engagé wu lañ ngir taxawu ak dimbali doomu aadama loolu mooy li nga xamante ni amoon na fi comme décision yeneen recommandation yi nag c'est dans le cadre de la commission ad hoc lañ koy finaliser bala ñuy yegg ci euh, tas ko ak euh, waxtaan ci euh, maanaam loolu moom amul amul déggandiku suba dinañ tàmbali préparer convocation yi pour sans tarder sans délai ñu tàmbali liggéey bi ñu gën a surveiller plage yi gën di xool Euh, ak police ak gendarmerie plage yi nga xamante ni xale yi ñi ngi fay nekk waaye gën tamit di waxtaan ak nit yi gën waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci plage yi mais gën a waxtaan tamit ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo njaboote euh, xale yi ngir plage yi nga xamante ni dañ fa aaye ko fa dem euh, ñu kenn bañ fa dem dafa am ay plage yoo xam ne dañuy tere ñu sangu fa li tax ñu tere ñu sangu fa du rek dañu tëb tere ko mais dañ ko tere ndaxte plage la yu dangereuse loolu moo tax décision bi mooy gën a ñoŋal taxawaay bi ci police ak gendarmerie ak sapeur pompier ci plage yi ñaareel bi mooy dañuy teg benn commission boo xamante ni lii liggéeyam mooy balaa yàgg ñu mën a def benn reclassement plage yi xool diggante 2007 ak léegi bi ñu mujjee reclassé plage yi lan moo fi soppeeku ba li nga xamante ni mën nañ ko euh, def à jour ci niñ koy waxee ci tubaab xool léegi nan la ñu mën a waxee ni plage yi kat nangu nañ ni nit yi mën nañ fa dem sangu plage yi dafa dangereux wóorul ci nit yi ngir ñu mën fi sangu ñu daal di ndekk ministre bi ñu dénk wàllu nag biir réew mi lu bari nag ci euh, ñi génn ci wàllu nag euh, média yi ak i communiqué yi ñuy daal di nag rotal ngir daal di justifier wala layal la ñu daal di jaarale ci assemblée nationale coppite yi ci code pénal ak ci code procédure pénale ministre intérieur Antoine Félix Diome mu ngay daal di nag indi ay rek euh, leeral ak cëslaay ngir daal di wax ne rek li ko tax a jóg dëgg texte boobu du laalewul ak indi ay coppite ci wàllu. seentu droit ñii di manifester wala daal di nag wàññi seen i euh, liberté ci nag euh, doxalin bi ñuy daal di def saa su leen dara daal di naqare Amadou Moustapha Dieng. gouvernement bi mi ngi wéy di layal loi bi nga xam ne jot nañ ko wootee fan yi weesu ngir soppi. code pénal ak code de procédure pénale fii ci Sénégal ginnaaw bataaxal bi nga xam ne ministre de la justice jot na ko génnee tey Antoine Félix Diome nekk ministre de l'intérieur jot leeral jubluwaayu loi bile. amul dara lu ci soppiku lu dul mbirum xa financement wu terrorisme wala apologie terrorisme boo xam ne dañ ko décalé yóbbu ko mu jóge ci alinéa dem ci benn article mais li ñuy wax ci affaire manifestation ak li ñuy wax ci affaire liberté amul dara dara dara lu ci soppeeku diggante 2007 ak léegi ni ko bi ni nga xamante ni noonu lañ ko bindee woon ci 2007 bindee wat ko noonu ci 2016 amul dara lu ci soppeeku bi ñu ñëwee en 2021. ci noonu muy wéy di xam ne ne dafa am. ay charte yu ñu teg di ay ponk yoo xam ne bu ko nit ki jàllee ba def lu mu def ci la ñuy doog a dut baaraam jëfin wi daal di koy dippee jëfinu terroriste yoon dafa ni dangay def li nga xamante ni dañ ko tere ba pare listé ko nit ci lii rek la mën a yem bu mu ko listé ba pare nag ni ci lii rek la mën a yem mu ne waaye boo ko defee fekk ni danga nga ko def jublu ci da nga bëgg a nasaxal banqaas euh, réew mi da nga bëgg tiital ay doomu aadama wala danga nga bëgg a salfaañe xamante ni moom la réew mi di doxee ginnaaw bi nga defee li yoon tere ba noppi. boole ci jubluwaay boobu bu ñu boolee ñaar yi loolu la ñuy wax ni mooy at terroriste. ci gis-gisam ñi doon manifester naan loi bi du jàll dañoo xamul dëgg-dëgg lan mooy jubluwaayu loi bi lee. bi existe na depuis 2007. jaaxle day dikk bu ñu waxee ni dañu bëgg nasaxal liberté dañu bëgg nasaxal démocratie dañu bëgg a euh, def loo xamante ni dafay euh, indi deltu ginnaaw ci démocratie loolu moom man de à titre bi ma ko déggee dama ni xaj na dafa am beneen code pénal wala beneen texte boo xamante ni xañ na feneen la jóge waaye bàyyeekul fii si suñu réew. Ah, ci la ñuy daal di nag euh, tàbbi ba tey ci wàllu nag euh, yoon. ak ñi ñu daal di tegoon loxo njort ne laale nañu ci mbirum nag euh, Boffa Bayotte fale ca diwaanu nag euh, Ziguinchor ñoo fas yéene nag amal grève xiifal ndax téye ndi bu yàgg fanweeri fanweeri juin 2021 di ëllëg lañ ko bëgg rek door forum justiciable ci boobu jamono daal di nag euh, di woo ñi juge bi nga xam ne nag moo yore bile dossier ñu daal di fexe nu mu gën a rek gaawee ñu daal di koy nag sotti ñuy fàtte na nag délai di app yi nga xam ne dafay sore lool ci traitement dossier yëngu ci wàllu Euh, yoon nee ñu daal mbir moomu méngoowul ak article 9 bi nga xam ne euh, pacte àdduna wërngal këpp bi jëm ci wàllu ak ak yelleefu civil ak politique nit ki euh, daanaka dafa sàmmonte ak moom ci loolu nag forum justiciable di sàkku ci état bi mu daal di fexe encadré ni ñuy teg loxo téyandi nag bu yàgg rawatina ci mbirum criminel bu ko defee yëf yi ban rek yeesooti weesooti lu mët ñaari at ci ab bataaxal ba ñu siiwal lañ ko daal di nag jébbale ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale ak euh, développement ba ci aménagement territoire euh, doon jiite sax ab ndaje la ñuy wax comité régional développement euh, ci rek li aju ci wàllu gox-goxaat yi naka lañ koy daal di suqalee ministre Omar Gueye ab campagne boo xam ne dañuy fësal plan boobu ñu bëgg rek teg wër nag région yi ci Sénégal yëpp ca Diourbel la ñu daal di nag dem bër dinañu li aju nag ci loi orientation ci wàllu nag territoire yi ba tax ñu ciy xaarandi nag njiitu njiitu réew mi daal di koy promulgué ngir ñu defe ko jëfe ko ci Ndakaaru ak diwaan yi ko wër ñu teelu kàddu yi Omar Gueye ak Adama Ndiaye. ginnaaw ñu ngi soog a am plan bu méngoo ak jamono na dem ci région bu nekk ngeen tenir fa réunion mooy CRD yi pour que nit ñi xam lan moo nekk ci biir PNADT boobu gis nañ ni kii ci Diourbel wax dëgg yàlla waxtaan wi aw na yoon ku nekk wax nga ni nga gisee plan bi te liñ ciy xaar rek appliqué ko ndax buñ ko appliqué rek njariñ lay doon ndax dëkk mënul développé bu amul planification te planification bu njëkk mooy planification spatiale fu ne ñu a dem ñu defal ñu def fii lii moo fi fii lii moo fi frais yu ñuy am mooy mbënd meeg maanaam tabax fenn ñun la toj ko parce que de fer wala autoroute dafay jaar yooyu yëpp dafay disparaître ku ni Jurbel ni Touba Mbàkke ndax euh, sëñ Touba moo tax Xaadimu Rasuul li mu liggéey ci biir àdduna bi ba loolu moo tax fii développement bu am solo moo fi am xam nga ne màggal Tuuba bu jotee ci xéewal yi ñuy def dañuy jëfandikoo ay xar ay béy ba ci gileem sax yoo xamante ne ak ay nag yu bare loolu bu paree der bi dafa am solo gis ngeen àjjuma bu jotee li nga xam ne moom la ñuy sol ci marakiis ay der la ceinture yi ñuy takk ay der la saag yi nit ñi yor der lañ koy defee mbaxane yu bare yu ñuy defar tamit day am der ci biir donc loolu ñu ni waaw war nañoo fexe ba ñu utiliser ko nag mu doon ressource xam nga boo jëlee zone daara nga xam ne nag yëpp dañuy maam ñuy indi leen Touba bu pare suñu mbokk yi nekk mexe dañuy defar ay ay ay babouche plan bi dafa prévoir ne dañu war a defar tannerie tannerie mooy usine boo xam ni day jël der bi defar ko ba mucc ayib su ko defee ñu jox ko ñi nga xam ni moom ñoo koy liggéey imaginel sénégalais yëpp nii waaw fi ne nii daal ñun ñëpp daal dañuy jënd ay maraaki suñu defaree fii mais boo ko xaymaa dina pour fanweeri milliards lu muy indi te xew yi dafay bare màggal gaa ngi fi euh, gàmmu yaa ngi fi ak yeneen ak yeneen tabaski donc loolu potentiel bu am solo la boo xam ni ñu ngi ciy liggéey ak ci gouvernement bi pour ñu mën ko taxawal fii ci région de Diourbel particulièrement vers la zone de Touba. Sud FM. njàng njàngale mi syndicat unique euh, jàngalekat yu Sénégal euh, di euh, SUDES ñoom nag ñu ngay daal di fësal yenn ci xeetu nag loo xoor ci li aju ci validation yenn ci jàngalekat nee ñu daal mbir yooyu le ci mbir yi xeexu syndical yi nga xam ne dañuy faral di ko nemmeeku ci milieu bi tax na ba service yu ressources humaines yu inspection éducation formation bu Kaolack département dañuy faral di yéexal mbir yooyu ba tax SUDES di ñaawlu nag ak yooyu li nag doxalin di ci interpellé autorité académique yi ba ci sax seen tutelle du ministère bi ñu dénk wàllu éducation nationale Kaolack Mamadou Camara ki doonoon secrétaire général sud-est ci Kaolack doon tamit secretaire général national bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllub relation extérieure ak unité syndicale ci sud-est gàññi na bu baax li xew ci service bi nekk ci ressources humaines ci inspection éducation ak formation bu Kaolack département Moustapha Diagne. li ñu jàppoon mooy ñun ñëpp ay syndicat lañ dañu war ànd euh, di liggéey ngir intérêt enseignant yi naam bu demee ci terrain bi ku nekk da ngay béy sa waaye li ñu constaté suñuy camarades nekk ci école yi xamal ñu ko mooy que IEF Kaolack département laay wax ci bureau de ressources humaines am na suñ militant yu fa dem di déposer seen dossier de validation mu am ku fa nekk jàpp nañ turam danañ ko wax IEF sur le fond ñu wax ko ministre bi mu ne leen beneen syndicat la bokk mu ne leen dossier yi léegi boo koy déposé da koy booleeg ak check bu bees maanaam li lay ne ci syndicat bi nga bokk mu ne ko bokk naa syndicat mu ne ko waaye boo deful sant ko kenn IEF ba ko fa nekk ba fa nekkaro département ku ñu xam la ku am valeur la ku respecté nit la sant ko loolu kooku nag jàpp nañ ko danañ ko dénoncé wax koy wax fii te danañ ko dénoncé bu ñu ko mën a dénoncé danañ ko dénoncé nanga ko def ci éthique ak loyauté ne serait-ce que pour l'image du syndicat parce que SUDES li ko boole ak ay militants mooy un contrat de vérité bu ñu demee sur le terrain nag war ut ay militants war a liggéey danañ ko def waaye bu ñu demee bu ñu joxee yeneen responsabilité danañ fexe ba ko ñu ko jox du ñu xalam SUDES bu Kaolack moom mi ngi doon yeesal ay kuréelam tax na nag Moustapha Diagne bi nga xam ne moom moo fi nekkoon ay at moom keneen wuutu na ko fa muy Moustapha Dieng Kaolack Mamadou Camara Sud FM ah Mamadou Camara ñu desandik moom ci assemblée générale ordinaire conseil syndical bu SUDES daal di amal foofu ca diwaanu Kaolack te kii di secretaire général national ba daal di koy nag jiite nekkoon nag occasion ngir ñi daal di sàkku ci gouvernement bi mu ubbi ay négociation waxtaan kon ci système bi ñuy daal di eh, jébbale rémunération eh, xeetu nag ndàmpaay ak yi di payoor yi jàngalekat yi eh, ci wàllu yore nu seen i nag carrière itam ba ci seen i nag ñaxtu naka lañ koy daal di ŋànkee secrétaire général euh, nationale bu SUDES ñu déglu ko ak Mamadou Camara. enseignants yi vraiment fu mu nekk nii li ñuy wax unanimement mooy que vraiment dañu sonn ndax ci seen carrière euh, dañu am ay problèmes dañu am ay toujours ay retard ci seen dans leur carrière loolu li ko waral mooy lenteur administrative lenteur boobu nag depuis longtemps depuis 2014 2015 ñu ngi koy dénoncé ak nguur gi eh, fexe nañu ba trouver solution mais solution boobu euh, léegi daal mu ngi tardé di ko appliqué mooy vraiment dispositif informatique de gestion de la carrière des agents de l'État tax nag vraiment enseignants yi bu mu nekk nii dañu démotivé ci seen liggéey loolu nag baaxul def naa du enseignants yi rek même les autres agents de l'État ñoom ñëpp na fexe ba di trouver solution ci problème yi ci jéego loolu dégg la def nañ ci jéego wante li des aussi am na solo lool lool lool ndax loolu dafa point yooyu dañu concerné jàngalekat yëpp mooy euh, lenteur administrative yi mooy affaire euh, euh, DMC donc crédit DMC pour les enseignants mooy aussi négociation bu ñu war a tàmbale ak nguur gi sur le système de rémunération ak système indemnitaire ndax ñëpp d'accord nañu ko vraiment li am ci fonction publique jaaduwul donc vraiment war nañ toog di teetaat vraiment yooyu changer li ñu war a justice et l'équité yooyu nag ba léegi depuis 2015 2016 étude boobu def nañ ko mais ba léegi on attend l'ouverture de négociation et boobu dégg naa ci loxo président de la république la la donc ñu ngi ñaax président de la république pour que vraiment rapidement question boobu aussi ñu négocier ci parce que c'est un facteur de blocage dans le dynamisme du travail des agents de l'État c'est aussi un point très important qui n'a pas encore connu Euh, ñu daal di nag desandi ci wàllu l'école yi fële nag euh, euh, ca diwaanu taata gin càccum robine yi nekk ci école yi lañu fa daal di nag nemmeeku lu war a toll ci fukki robinet yi nekk ci toilettu élèves yi daal nañ koy sàcc ba tax nag administration ba daal di koy ñaawlu bu baax a baax yooyu la kaayoo kaaw vol yi ñu ca daal di nag gis ndax gis nañ ne ay doxalin yu ñu mënul nangu la looloo waral sax ñu woote ab réunion bu jàmp ci altine tey jile ca lycée bu Tataguine ngir daal di xarab ni mel waaye itam yëgal ko euh, ñi ci war rek jot ba yóbbu ko ci wàllu nag yoon kii di Badara Diouf nekk comptable matière bu lycée bu Tataguine ñu déglu ko ak Birame Ndiaye. lycée Tataguine dafa am benn situation bu fi am démb lañ ko constaté ci bi parce que élèves dañu dem ci toilette gis ne amul robinet ndox mi tamit di di di sotteeku voilà donc ci loolu daal si euh, lañ ma avertir man comptable matière ma dem ma coupé disons compteur bi quoi voilà parce que bon actuellement c'est même foos sax. voilà donc bon ñu ngi waa ñu ngi waaj a fees quoi par rapport à cette à cette euh, situation voilà léegi nag bon école bi si lañ def benn réunion réunion d'urgence si euh, suba ànd ak le le proviseur ñu woote euh, réunion xoolaat situation bi parce que bon dafa ne situation boo xam ne bon mu ngi fi bëgg a yàgg. parce que parfois benn robinet la gars yi di yóbbu ñaar ñett mais bii moom bon dafa nekk benn situation bu ex extraordinaire. voilà comme nag situation bi euh, mu ngi ampleur mu ngi soog toll fii moo tax daal li ñu décidé moo jëm waxtaan ak population bi ñu def une campagne de sensibilisation waxtaan ak nit ñi si jumaa yi. si église yi ak tamit ñu waxtaan ak les euh, chefs de village quoi nit ñi ñu mën a xam ne que école vraiment dafa nekk un bien euh, commun dafa nekk loo xam ne ñëpp ko bokk voilà képp koo xam ne vraiment da nga dugg si école pense que war nga fa mun a def leneen lu dul ay ay ay sàcc surtout nag di sàcc ay robinet élèves quoi voilà donc si toilettes yi actuellement euh, dañoo obligé ñu tëj euh, tous les robinets di voilà voilà malheureusement que élèves yi bon actuellement ñu ngi dans les salles quoi mais amuñ ndox voilà parce que bon il faut ñu jéem a réparer euh, tous les robinets quoi voilà situation bu daal moom la ñu dund fii fii lycée lycée Tataguine donc di gën a ñaax nit ñi rek ñu xoolaat vraiment seen taxawaay voilà donc ñu ñu ñu éviter yenn yi quoi ñu daal di koy xeex ñu daal di nag desandi ci dooleel euh, capacité di xam-xam ak nag man manu acteurs yëngu ci wàllu état civil euh, defarum kayitum juddu ak ci aju Sénégal euh, bëgg na nag fësal li ni mel jaare ko ci yoon yu bari ci loolu nag ministère bi ñu dénk wàllu justice lëkkaloo ceeg fondation Osiwa jaare ko nag ci direction bu justice de proximité ak promotion fexe ba xale yi am seen ak ak seen i nag looloo tax ñu teg ab projet boo xam ne lañ ca bëgg mooy xeex xale yi nga xam ne dañuy juddu kenn di leen déclarer ci état civil ba dañ ciy teewlu kii di ma Mademba Gueye mooy directeur bu justice de proximité ci micro Moustapha Sall. ndaje bi li ko sumb rek dafa am benn projet bu am solo boo xam ne ministère de la justice daf ko taxawal. pour euh, ñu jëmale ko ci état civil. ñaari pàcc la nag euh, booy xool euh, projet bi. bi njëkk bi mooy ñu fexe ba vraiment xamal nit ñi maanaam def sensibilisation. yee leen ci importance bi nga xam ne am na ko. Euh, ndax ñëpp xam nañ ne tey soo amul këyit dara doo ko mun def donc pour wane ne état civil lu am solo la euh, beneen côté bi itam beneen euh, beneen pàcc projet bi mooy ñi nga xam ne ñoo ko séq surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir nit ñoo nekk à la base maanaam ñoo ñu ñu toog di waxtaan ak ñoom gën leen former pour que ñoom tamit ñu mën a gën a relayer message boobu ñoo ñu booy xool mais bàjjenu gox yi mooy officier d'état civil yi mooy euh, coordonnateur maison de justice et boole booleel nañ ci itam magistrat yi nga xam ne dañuy intervenir ci état civil bi mooy président tribunal d'instance nga xam ne ñoom ñoom ñooy surveiller état civil bi au niveau de la justice ak procureur yi nga xam ne tamit tam loolu tam seen rôle la ñoom tam surveiller état civil bi jafe-jafe la ba léegi ndax at mu jot ba léegi ñu ngi wax ay xale yu bëri yoo xam ni mënuñu def examen ndax amuñ kayit loolu moom dëgg la moo tax tam euh, ministère de la justice aussi di gën a di gën a def ay efforts ah euh, lu mel ni projet bi bokk na ci accompagné aussi par nos par nos partenaires yu mel ni aussi waa pour vraiment ñu gën a ñu gën a xeex loolu maanaam ñàkk déclaré xale yi beneen bi tam mooy euh, audience foraine yi nga xam ne tamit ministère de la justice dana koy organiser ñu fexe ba xale yi nga xam ne dañuy toll ci def examen te amuñu kayit au moins euh, magistrat yi yor yooyu mun a fexe ba ñu mun amal defal leen kayit ñu mun def examen euh, dañuy jàpp ne li ko gën a li ko gën a indi mooy ñàkk xam rek te jàpp nañ ne tamit suñu xamalee nit yi expliquer leen ndax jàpp nañ ne kenn amul intérêt nga am sa doom sa doom du mun def dara Euh, ñu daal di desandi ci wàllu lekkool bi ak journée excellence bi nga xam ne amicale élèves ak étudiants yu Fass booy ak euh, Daaru Xuddoos daal nañu rek taxawu élèves yi nga xam ne nag ñoo gën a rek xariñ daal leen jébbal ay euh, raaya bu ko defee ñu gën rek am taxawaay ci lekkool bi gën it def résultat nekkoon occasion ci étudiants yi ngir seen i jafe-jafe ñu daal di koy fësal rawatina ci université yi ñuy jàngee Babacar bés bi nga xamee ni moom lañ doon sargal ndongo daara yu gën a xarañ ci Fass Boye nekk ca Daaru Xudus département bu Tivaouane kuréel gi ëmb élèves yi ak étudiants yi nekk ci gox boobe neexal xale yooyee Fass Boye ak li ko nekk na gox boo xam ni bii xale yi nga xamee dañu war a yi dañuy faral nekk ci tool yi wala ñu dem géej bésub sargal bi tax na ba ñi nga xamee ñoo nekk ci kuréel googe ëmb élèves yi ak étudiants yi di waxtaane li ni mel Alassane Faye président amical bi lañ ciy déglu durant l'année scolaire bi di jàng ba tey yàlla dogal ñu am résultat résultat boobu ñu am nag moom la génnee pour teg ko ci kanamu askan bi won ko nit ñi élèves yi ak étudiants yi ñu ànd tey pour war a sargal suñu ay ndaw war leen a dimbale war leen a taxaw li ñu ci jublu rek pour ñu gën a xam njàng place ban la am ci société bi ak fi jamono toll tey nga xamante ni bii dañoo soxla lépp luy doomu aadama di soxla soxla nañu ay ingénieur ay docteur te loolu nag dafay jaadu xale yi ñu xiirtal leen ci njàng won leen ni beneen genre métier am na mais jàng tamit am na jàng boobu nag la ñu bëgg ñu jublu ci loolu moo doon sababu tey pour primer leen. étudiants ak élèves yi nekk ca Fass Boye yéeyaale yàbbi ci seen i jafe-jafe yu tar yi nga xam ne moom lañu jànkoonteel wàllum orientation yi ak dëkkuwaay ci université yi rawatina ponk yi ñu leen di waral di xàllal pour ñu xam fu ñuy teg seen tànk ba tax sax ñuy sànni ki yoox jëmale ko ci kilifa yi ngir jafe-jafe yooyee am saafara Moussa Sow secteur général amical bi lañ ciy déglu. jafe-jafe bu gën a mag bu étudiants yi di jànkoonteel mooy jafe décembre di ko fay at bi yëpp pour étudiants yi fii nag da ngay jugee dem Dakar xamoo fa kenn amagoo fa logement étudiants yi dañuy obligé dañuy fanaan ci couloir yi ñii dañuy dem sax ba dañuy bàyyi jàng fii am nañ fi des exemples yu bëri ñu dem ba bàyyi jàng parce que tout simplement amuñu ay logement à part tamit mooy comme li étudiants yi di jànkonteer yëpp presque même problème bi lañ am mooy ay affaire orientation yi. Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk Babacar ñu dem jóge fas booy wàcc Thiès foofu njiitu réew mi ak nemmeeku ba muy daal nag amal gannaaw inauguration jëm ci wàllu ISEP ba Babacar Ndaw allo Adama Ndione waaw ñu ngi lay ni ñu ko waxee noonu la ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy site bu ISEP bu Thiès ndax muy jamono ji njiitu réew bi si euh, euh, euh, di wax nag cérémonie am leen guddi parce que dix neuf heures trente cinq mooy ne dina modèle de ISRA bi nga xamante ne juróom-ñaar def nañ ko tabax. ci biir Sénégal euh, dina ko wéyal dooleel leen ba nga xam ne région bu ne dina am ISEBAM ay suñ ko xale yi doon a fii wala transport a dina dina def euh, étudiant ISEB bu nekk ñu wutal la bourse bu gën leen fexe euh, laata ñuy eggale a ISEB ku nekk mën a am ISEB boo xam ne mi ngi sa biir région ñu mën la jegeel loolu nag dina si waxtaan directeur des bu banque mondiale ak ñi nga xam ne ñooy waa coopération koy gaaw yi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ak yeneen partenaires yi demee ni AFD ak groupe Sénégal ñu gën a wéyal projet mel noonu euh, gis na mobilisation liñ ci rafet la investissement yoo xam ne juróom-ñeenti milliards ak liñ ci yokk si équipement yëpp mu toll si juróom-ñeenti milliards ci boo xam ne quinze hectares la une quinzaine tabax ñu mu illustré ko exemple bu rafet am xale bu ñu def ngeen bëgg a dàq waaye liñ ci naqarlu ci euh, visite bi par exemple Thiès génn nañu wax ci la benn bokk yaakaar mobilisation ñu dal ci lenn ci ay doomu Thiès mu ngi yor opposition bi ak waa ak leen ba nga xam ne sax na responsable allo dafa mel ni son bi dafa xaw a am tuuti jafe-jafe qualité bi des na voilà ñu koy naan ñu dem ko rek di nekk man ñu wax na tey sotti xam naa xaw na solo la fii wax leen ko réglé te on est un peu trouvé xam nga que protocole bi c'est ça pour te tamit xam na di gis Euh, waaw ñu jéggalu kon ci Babacar Ndaw dafa mel ni xëy jafe-jafe réseau moo ci daal di tàb bi ba tax yëf nag taxu ko leer lool mucc ayib dinañ ci daal di dellu siwaat ak moom gannaaw ba njiitu réew mi yëkkatee kaddu ak kaddu yooyu mu daal di nag rotal coow la fa am itam ba ci responsable rawatina PDS ba ñu tek loxo ak yëpp euh, ci wax sa xalaat bi bokkoon na ci ci kanam dinañ ci daal di ubbi antenne bi wàccaayu tabaski bi fii ñetti ay bés daal di ci nag des barab yu ñuy jaayee xar yi de vente yi commencé nañ ko nag nemmeeku bu baax a ndakaaru foofu ci Sicap Liberté gis nañ ko fa Grand Dakar ak ki wet gi itam li aju nag ci wàllu nag njëkk yi daanaka euh, ku ci ne daal mooy attraction bi ndax gis nañu ne euh, vendeur yi am nañu yenn ci ay jafe-jafe waaye itam euh, njënd meeg njaay mi daal gis nañ ne noppeegul ñu ànd ceeg suñu stagiaire su kay gay wut xarum tabaski daa di nekk lu yiteel lool askan wi jaaykatu xar yooyu lay daa di tàmbale seen commerce ak ay xaru yar lu ci ëpp ci li ñuy jaay njëgu xar yi mu ngi dépendre ci seen melo ak xont muy wuyoo ci turu Alassane Sow jaaykatu xar bi mu ngi ñuy xamal li waral point de vente yi bëriwuñu at mi ñu nekk suñu zone bi ñu nekkee mooy zone Sicap bi Sacré Cœur Liberté boo xoolee BRT bi dafa war a jaar moo tax ñu nekk ko dee Sacré Cœur Liberté catastrophique ndax daaw xar yi dañoo bëri woon xar lu mujj a dugg ci xar dafa ëpp ak Covid loolu waral ñu bëri daal di perte daal loolu moo causé parce que ñeen di bëri dañoo ne duñ ci dugg parce que wóorul duñu am fu ñuy jaayee ñeneen ñi nag lu tax dugguñu ci ñu bëri parce que daaw perte bi la Mamadou Sow moom jàpp na ni que njëgu xar yi mu ngi dépendre ci njëgu xont bi jafe gi moom metti na trop parce que amuñu ndox daaw ibaloon nañu ndox mais ren amuñu ndox dañuy dem ba Grand Dakar ndox indi lekk xar yi fu mu nekk nii dafa cher trop trop trop ripaas bi ak ngooñ bi seer na trop repas sac neuf mille lay jar te xar mu nekk nii ngooñ rek nga leen jox ak repas te da nga koy jënd chaque jour chaque jour xar yi dina lekk lu mu dee dee dee quatre sac ngooñ repas bi tamit chaque jour dina lekk ñaari sac repas fii ba tabaski jot moo tax ku la ne xar day yomb day wax lu ko neex nag xar faw mu seer day seer de mais fii ak repas yi wàññiwul leen lekk xar yi wàññiwul leen xar day seer mu nekk jaaykat bu bàyyeekoo ci Mali mu ngi ñuy xamal ñàkkum ndox bi ñuy jànkoonteel ci bërëbu jaayukaay bi leneen ci ay jafe-jafe yu ñuy dund bokk na lekk gi naan gi ak nelaw gi ñuy nelaw ci mbedd bi njaayum xarum ren gi mu ngi commencé ndànk-ndànk jaaykat yi am yaakaar ni que atum ren bi dinañ jaay seen xar yëpp Ah, ñu daal di dem ci poste foofu yi nga xam ne nag ay joppite la ñuy indi ci seen wàllu nag ah, programme poste challenge mu nekk programme bi nga xam ne dina mën a tax ñu jëfandikoo yenn ci ay xeetu nag ah, jumtuwaay yuy indi yenn ci xar kanam yu bees ci seen nag jàkkaarloo ak concurrence bi xew ci seen milieu bi juróom ci ay nag solution nee ñu daal nañ koy fay rek fësal lañu ca bëgg mooy fexe ba xool jafe-jafe yi poste amee waaye itam naka lay def ba dugg ci ci wàllu écosystème digital Hadisène économie numérique di gën a meññ fii ci Sénégal post fa yéene dugal ci loxoom naam sax am nañu ay jafe-jafe ba tax ñu bëgg a taxawaat daal di lancé bile programme ñu duppee poste challenge juróomi saafara moo nekk ci bile programme Abdoulaye Bibi Baldé directeur général bu poste. juróom yooyu solution yooyu benn bi mooy euh, seen colis parce que loolu vraiment dafa méngoo ak suñu liggéey ñun suñu liggéey livre la donc euh, dañu livré xam nga ni léegi poste bareetul facteur suñu déplacement yi yombul donc euh, dañu am ay concurrents ñi nga xam ne ñoo ñu gën a suuf ñu ñu ñuy sonal si livraison boobu ñu xalaat ne vaut ñun ñu nekk si wetu client bi beneen programme bi mooy fin mi bon en anglais mooy trouve moi fekk ma fi ma dëkk programme boobu dafa am solo parce que chaque sénégalais wala chaque kër war na mun a am adresse loolu ñun def ñu yombal suñu liggéey te dina yombal sax liggéey ñeneen livreur beneen programme bi mooy euh, post market donc place de marché ak euh, guichet unique postal bi. ngir rek mën a taxawal yooyu les solutions daal ñu teg ab stratégie dinañu amal tamit ab foire boo xamante ne ci l'internet gi lañ koy defee fukki fan ak juróom ci weeru septembre jàpp fukki fan ak juróom ci weeru octobre octobre. xam nga ne léegi euh, dajale nit ñi yombul ak feebar bi euh, pandémie Covid 19 euh, donc yombul moo tax ñu imaginer aussi que mun nañu organiser foire en ligne à travers suñu programme donc post market 100 cent en ligne daanaka gisaguma ko loolu aussi day nag innovation de taille bi nga xam ne post def na ko en ligne gis ngeen ne on a la foire une fois et donc solution baa ngi nii. di wax ne nag juróomi solution yooyu ñu teg ngir rek yeesala. xalaat poste ñu ngi ko jëlee ci ab concours boo xamante ne direction générale bi daal dina koy amal.